salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokk yëpp di leen ñaanal borom bi mu sàmm leen yàlla dogal na tàmbaleen li nga xam ne moo di liggéey bi ñu dëñmaloon yàlla dogal na dajaleen lu toll ci un million mu des tamit beneen somme muy un million quarante cinq mille ñuy ñaanal borom bi subhanahu wa taala ñi nga xam jot doon ci def seen alal yàlla na leen yàlla fay aussi tamit ku ci mën a jàpp rek nga jàppaat ci te yàlla tax liggéey bi door na ñu ngi nii commencé ko ci lii nga xam ne moom mooy taxawal li nga xam ne moo di poto yi ñuy sàkku ci mbokk yëpp ñu gën a jàppaat li nga xam ne moo di liggéey borom bi subhanahu wa taala tey ñaan borom bi subhanahu wa taala mu yombal ko bu baax a baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullah
wéy leen di abonné ci suñu chaîne bi di Fafa TV ngir ngeen mën a jot suñuy vidéo yu bees yi alhamdulillahi waliyu saalihin wal aaqibatu lil muttaqin fala udwana illa ala zalimin wassalaatu wassalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahaabatihi ajmain mbokki jullit yi ñu ngi sant yàlla suñu borom tabaraka wa taala di ko dimbandikoo ñu ngi seede na amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg budul yàlla moom rekk mooy buur bi nga xam ne nguuram donnul ko ci meen du caagan askan moom yàlla kenn folu ko kenn mënu koo folli ñu ngi seede ne moom rekk daal mooy buur di seede ne moom rekk itam lañ war a jaamu jaamu gi di jul njëriñ tey ak ëllëg ñàkk koo jaamu comme nam ñu ko waxee nekk alkane musiba tey ak ëllëg di seede itam ne ñam doon yónni ñiy wommat jaam ñi di leen jëmee ci ngërmande yàlla ak i bëgg-bëggam këca mujj mooy rasulullahi muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ñu ngi seede ne yàlla jox na ko loo xam ne ëmb na texe jaam ñi tey ak ëllëg buñ ko toppee rek jëriñu waaye nag noonu la ñuy seedee ne ñàkk koo topp alkandale tey ak ëllëg di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu boole ñu ci ñi nga xam ne dañ koy topp ba ànd ak moom dugg aljanna dëkk ak moom aljanna loolu yàlla ñu ko yàlla defal waaye buñ dégloo matla xutba bi incha allah tey dañ ko tànnal benn tomb bu aji ci wàllu xibaar ci làmmiñu jamono ñu koy wax information mbokki jullit yi jullit bu nekk dafa war a gëm ni lépp lu jullit bi yëngu moo xam ci biiram la walla ci bitim la am na lu ko ca lislaam rëddal mu war caa jaar comme niñ ko jiitalee te jaar ga jëriñu rekk lay doon ñàkk gaa jaar nag la muy jur mooy ñàkk jëriñu mbokki jullit yi xibaar walla information dafa bokk ci dund bi du tey rekk waaye démb itam da cee bokkoon loolu sax moo sababoon borom bi tabaraka wa taala yónni woon ay yonent lu ma téeméeri junne yonent ak lu teg ñoom ñëpp di ñëw di xibaare borom bi tabaraka wa taala nan lañ ko war a jaamu nan la ñuy jëflanteeg moom waaye di xibaare sax ëllëg suñ fi tuxoo dem ñi nga xam ne ñoo déggaloon yàlla seen dëkkin fan la tey boo doon laaj jullit ñu bëree bëri mën nañ la jox ay information wala ay xibaar yu bëree bëri ci aljanna te demaguñ wa kadalika al aks muy safara yàlla nañu yàlla musal ci safara ma ne kon information dafa bokk ci yi nga xam ne nit ki mënul ko ñàkk comme ni nga xamee ne nit ki mënul ñàkk lekk mënul ñàkk naan ak ngelaw lu muy noyyi te lekk ga ak naan ga ak ngelaw la faaw mu mucc mën a dundal jëmm waaye bu taqee mbala mu tilim am yu mu àndal au lieu que muy dundal jëmm da koy lor wa kadalik al axbaaru mutadaawala maanaam xibaar yi nga xam ne day ñëw di rot si noonu la mel ma ne kon mbokki jullit yi loolu moo tax lislaam di yittewoo bu baax a baax li ñuy tuddee information wal xibaar ci ki koy wax la muy wax na nekk dëgg waaye itam fa muy bàyyeekoo muy masdar ba na nekk itam dëgg waaye itam la muy ëmb na nekk dëgg ki ko war a wax nag kooku mu ngay ñëw loolu moo tax borom bi tabaraka wa taala ci melowoo melow dëgg woowu la woo jullit ñëpp ci yaa ayuha alladina amanu taqullaha wa kunu maa saadiqin ragal leen yàlla seen borom te ngeen ànd ak way dëggu ya ca beneen mu ne wa saadiqina wa saadiqaat yàlla ngay tagg way dëgg yu góor ya ak way dëgg yu jigéen ya comme nim xaraamalee sofaan bi muy fen waxuñ sa xaraamal ko yem ci waaye da koo boole mu bokk ci melokaanu yéeféer yi ci innama yaftari lkadib alladina laa yuminuun xamal ne ñi nga xam ne dañuy duur di fente ay nar mooy ñi nga xam ne ñoom gëmuñ loolu moo tax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci benn xadis mu ne te dañ ko laaj mu ne jullit mën na def lii sofaan la mën na def lii sofaan la mën na def lii sofaan la ñu ne ko fen nag mu ne déedéet jullit du fen jamono bii nag waxuñ doy na waar waaye weesu na waar ba mattool ci côté boobu te ahamul masaadir wal wasail yi nga xam ne ci la ñuy jëlee information yi weesuwul ñett muy yi ñuy gis ak yi ñuy jàng ak yi ñuy dégg gis nga ñi ñuy tuddee tubaab yi wala occidentaux yi information dañ koo jox gëdd lool ba bokk na ca seeni wax ñoom man malaka al ilaama faqad malaka al aalam képp koo xam ni jottelikaayu tasukaayu xibaar yi téye nga ko sa loxo jàppal ne yow téye nga àdduna bi loolu moo tax jamono bu nekk ñu man di façonné nit ñi di leen mooñ selon ñoom niñ ko bëggee ak niñ ko gisee daanaka jullit ñi ñu bëgg ñu bañ dañ leen di façonné di leen mooñ di leen tëggee comme ñoom niñ ko bëggee te daanaka mënoo ci dara mooy ku nekk ci ñun soo xëyee bokk na ca la ngay yittewoo lool mooy information lan mooy xew ci dëkk bi bërëb sàngam lan moo fa xew kon loolu dafa jara yittewoo ba jullit bu nekk man di ci taxaw taxawaay bu wér mbokki jullit yi ci ni ñuy tëggee information ba mën a wal ba ci askan yi benn réew a ngi moom dañ koy askanee réewum jullit dañ naan sax jumhuriyatul islamiya ma bañ a tudd tur bi réew moomu ñuy askanee ne réewum islam la waxuma sax réew ma waaye ñu ne état ba état wu islam la mooy réew mi nga xam ne wuutee ak xotti wor ma ci shari'atul islamiya foofa la samp baax réew la moom ñun ni ñuy dajee ci suñu jàkka yi di takk sëy diggante diw mu góor ak mu jigéen utal leen këyit boo xam ne suñ demee mairie ñu légaliser leen ko ba ñu am këyit bi wane ne diw kat may nañ ko diw ci góor ak jigéen ñoom àgg nañ foo xam ne diggante góor ak góor jigéen ak jigéen noonu lañ koy taxawee di ko takkee ci jàkka ji di leen bindal ay këyit ngir ñu légaliser leen ko te ñu ne jumhuriyatun islamiya ma bañ a tudd tur wi réew moomu ci fan yii yéen a ngi dégg ne am na benn manifestation bu rëy bu fa am ci aw nit woo xam ne ñoom nee nañ dañ doon muuru xëy xëy ñoom askaneewuñ seeni kilifa ya leen doon teg muusiba yi waaye dañ koo jël dóor ko lislaam ñu ne lislaam moo leen doon muuruloo te muuraay googa mu ngi ci kaamilu alquran yi manifestation ya bañ koy commencé lañ njëkk a def mooy kaala yi ñu yoroon lañ génne di ko lakk jël kaamilu alquran yi di ko lakk waaye kilifa yi nga xam ne ñoo leen doon teg loolu fu ñu xool seeni photo wala seeni dessin dal di leen lakk ma ne suñ xamoon dëgg-dëgg danañ xam ne lislaam sonalul leen tegul leen ko waaye ñay ittewoo ñey mbubboo mbubbum lislaam te wuteeg lislaam ñoo leen ko teg waaye da ngay jël xool information bi ni nga xam ne noonu la ko occidentaux yi di traité su dañ naan lislaam ba lislaam ba lislaam ba lislaam ba ba yow jullit bi nga xam ne su fekkoon ne xamoo lislaam xamin bu wér loolu mën na laa jural akuk yàccaaral waaye nag lu të xam daa yàggul waaye lu yàgg rek incha allah borom bi tabaraka wa taala dana ko leeral li yahlika man halaka an bayina wa yaxya man xayya an bayina borom bi tabaraka wa taala nee na in jaakum fasiqun bi naba in fatabayyanu loolu moo tax itam jullit ñi war nañ am benn alternative ci information yi nit ñi koy joxee mu nekk sofaan jullit ñi dem organisé wu ba am ay bérébu tasukaayu xibaar ba lu ñuy indi ñu man koo dajji sànni ci àll ba xam ne loolu wérul xutba yi ñu fi mujjoon a xutba ndeysaan ci wàllu waqfu junjoon nañ ko wane ne dafa bokk ci waqf yi nga xam ne am na doole trop mooy ay xanawaat yoo xam ne jullit ñi ñoo koy moom ñu set ñu xam liy dox ci àdduna bi ñeele lu ñuy wax ci sofaan ñu daal di ko dajji malheureusement fi mu ne booy xool ñun information yi ñuy jox ay nangam agence de presse yooyu rek la ñuy jox te yooyu ña ko moom xam nañ leen seen yoon nekkul ci lislaam bu ñu sañoon tey lépp luy gàkkal islaam di ko ëyibal ci la ñuy xëy di ci gont moo tax ñi nga xam ne dañuy góorgóorlu ci amal ay seen ngir contre ñooña yal na yàlla dëgëral leen waaye waaye itam jullit ñëpp itam war nañ taxaw di ci participer in jaakum faasixun bi naba'in fatabayyanu pour nga xam information bu wérul li mu mën a jur aaya jooju borom xam-xam yi nee ñu mu ngi wàcc ci walid ibnu uqba yonentu la woon boo xam ne yonentu yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moo ko yónni woon ci goroom buñ doon tuddee alxaaris ibnu diraar mu nekkoon buuru giir goog ñuy tuddee banil mustaliq ndax dane woon daa tuub bi mu tuubee sang bi gaaral ko bokk na ci lam ko waxoon mooy da ngeen di joxe asaka bi ñu demee ba waxtu asaka jot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di yónni walid ibnu uqba ne ko boo demee ca xaaris ibnu dirar ne ko kat app bi jot na la ñu am ci asaka ci alal nañ ko xayma génn ko jox la nga indil ma ndeysaan nee ñu mu dem ba jub dëkk ba xam naa bi mu demee ba jub dëkk ba dégg fa bi yëngu fitam mayatul ko mu jàll mu wàññeeku ñëw na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow kat ki nga ma yónni woon pour ma jële asaka fekk naa ko mu murtat murtatul yem ci waaye sax nag dafa maa bëggoon a rey kii di wax lii kan la ab saxaabi yu la bu nekk ci keppaaru rasulullahi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waaye dégg nga li mu wax bi mu waxee loolu lan mooy atee lislaam mooy sang bi yebal ab katiba ci taxawaay formé mbooloo ñu jël seeni ngànnaay ne nañu dem bu fekkee ne loolu am na ñu jàmmaarloo ak moom delloosi ko wala ñu jëflanteeg moom nee ñu bi ñu demee ba ci yoon yi lañ taseeg ñële di ñëw ndax ñoom gis nañ ne àpp bi jot na te sang bi danoon bu àpp bi jotee mu yónnee pour jëlee asaka te gisuñ ndaw donc ñëlee ngi ñëw pour joxe si asaka ñii ñoom ñu ngi jóg pour dem jàmmaar looji ak ñoom loolu bu fekkee ne tarayus maanaam ak teey amu fa ak patient nit ki moom boppam am doptu nafsi lan mooy xew ñaari mbooloo yi bu ñu tasee musiba yi am te li ko waral mooy benn fausse information kenn du wax ne sax kii dafa juum waaye da ngay gis rek ni mu ko tëggee waaye borom bi tabaraka wa taala mi nga xam ne moom mooy wallu jullit ñi di wallu doomu aadama yi mu ne fata sabbatu ci benn ci xiraa ay fata bayyanu na ngeen ko birlu ba mu leer leen jamono ngi boo xam ne nag information waxuma sax ñu indil la ko parce que nit su fekkee ne yàlla may na la ngay dund am tuuti ak jonjoo toog di dégg da nga xam ne dëgg-dëgg ñu wax boog un un certain un certain ñenn ci ñuy joxe information yi dëgg-dëgg war nañuy bàyyi xel seen bopp waaye itam ñiy toog ci bérébu di analyser ay information war nañ bàyyi xel seen bopp mbir day xew nga ilmaam ko yow xam ko minal alif ilal yaa toog dégg aw nit di wax nga xam ne ñii la ñuy wax ak la am mu ngi mel ni asamaan ak suuf yàlla xam na ko te yooyu su bëree ci nopp nga di ko gis su yàggee yow ak sa bopp dalay façon bi maanaam dalay soppi joxaat la nga nekk keneen amaat beneen idée amaat beneen gisin te mal information la ndeysaan sayida aliin alayhi rahmatullah benn bis ci jamono nattu bi ndeysaan dama dem ñu toog di waxtaan ba mu yàgg ci information mu ne ma man de tey bi ma xëyee ubbi sama rajo bi dégg naa ñuy wax Aliou Ndaw Imaam Ndaw Aliou Ndaw Imaam Ndaw muy dama dem ba mu yàgg ma def nii làmb sama bopp mu ne ah dafa mel ni kon beneen Aliou Ndaw la ñuy wax bu bokkul ak man mu ne déedéet pourtant Imaam Ndaw Kawlax la ñu wax de mu ne ah kon nag man la man la mu ne ma dóor a gamaat ne kon ndeke ñoom la ñuy wax man la ñuy wax te man lu ñuy wax mosuma koo dégg mosuma koo xam lan moo waral loolu mooy dem ba yow ngay xaw a sikki sàkk ci sa bopp lan moo ko waral information te am na ñu nekk ci ginnaaw loolu julli ñoom nañuy bàyyi xel loolu moo tax kilifa ga doon na wax mu ne sawfa tara idal jallal xubaaru hal taxtaka farasun am am ximaarun mu ne pënd bi jog na mu ne waaye su pënd bi jógee nel tekk mu ne tekk googa dana la wan yow mbaam nga war walla fas nga war mbokki jullit yi jamono bu doy waar a ngi nii te jamono bi la tax mu doy waar dara lu dul ñun doom aadama yi ñuy bàyyi xel xibaar ndax kat waral na ay armée jokkoom nuñ ko junjee waral nag tampaloo waral nag noonoo waral nag yàqoo waaye waral na sax ay diggante yu ñaawoo te loolu dara waralu ko dara waralu ko lu dul ay information yoo xam ne melut nam war a mel te ñetta ngi yoo xam ne ku nekk war na di ko bàyyi xel mooy information muy xibaar suñ koy jël ci ku màndu lañ ko war a jëlee saay saay boo xam ne faasiq la nga gis démbam lépp wax lu dul noonu la jëfam yépp wax lu dul noonu la kooku su waxee benn wax wax dëgg yàlla comme sonal jàpp naa ne yow yaa bëgg a sonn waaye koo xam ne waxam lépp wàcc la te nag ñu xam ne mbir mi itam bul la nag bul la jamono bu nekk ñu ngi wax ci aw nit jamono bu nekk wax jooju nag bàyyil xel ne bés mën na ñëw mu tourné ba sa numéro feeñ ñu commencé di wax ci yow kadalikum kuntum min qablu démb waxoon nañ ci diw tey ci yow la ka ko wax nag ab saay-saay la bàyyil mu dem ñaareel bi mooy wujubu tasabuti min al xabar wa maarifati sidqi xibaar su ñëwee gëstul bu baax a baax ndax lii dëgg la wala du dëgg waaye tey man ak yéen information bu ñu jot ci suñu whatsapp yi wala réseaux sociaux yi au lieu nga laajte wala nga def tarayus déedéet yaa ngi info sànni envoyé ko diw ak diw ak diw ak diw waa li ma dégg nag waa naa nga mag yow yaa ngi tas xibaar bi yaa ngi tas information bi te ñuy bàyyi xel ne inna alladina yuhibbuna an tachia al fahisha fi alladina amanu lahum adabun alimun fi dunia wal axira wallahu yaalamu wa antum la taalamun nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax amaan na sax moom mi koy tas di ko tasaare yàlla xam ne ne jublul ci yàq lu baax dong la ci jublu waaye tas ak fen ak boppam dafa baaxul kon information su jógee mu am lu la ci lënt wala nga ne lii de baaxul bala ngay tas di envoyé diw ak diw su la neexee hôtel wala nga tal dal ba gis ko ne ko ah man de nangam ak nangam su boobaa lam la cay wax bu fekkee ne kuy doy la nga loolu war na laa mën a doy ñetteel bi adamu jawaazi itimaad al xabar alladi lam yasbut mooy daganul nit ki di sukkandeku ci xibaar boo xam ne wérul ba ci jël benn décision xibaar bi ak boppam wérul cosaan bi wérul nga bëgg ci sukkandeku di jël ay décision ndax décision yooyu war naa mën a wér imam malik ibnu anas imaamu daar alhijra rahimahullahu taala daan na wax mu ne xabaar duñ ko jëlee ci ñeent mu ne koo xam ne ab dof la bu la neexee rek nga ne dof la lu wolof di wax dof bu ñu pentiir mu ne kooku moom su waxee bàyyil mu ne donte sax nag moo dàq mokkal luy mokkal waaye ab dof la bàyyil ñaareel bi mu ne koo xam ne buy waxtaan day fen mu ne sax donte du mu tuumaal ne moom day fenal yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waaye comme buy wax day fen rek mu ne kooku waxam bàyyil ñetteel bi mu ne wa saahibu hawan ak koo xam ne daa am bànneex bu mu bëgg a dëgëral mu ne kooka bàyyil ndax man naam la muy wax day dëgëral ay gis-gisam ñeenteel bi mu ne waaye ngi boo xam ne ndeysaan mag la kilifa la baax na day jaamu yàlla waaye nag la muy wax xamu ci dara mu ne ñii moom duma leen jox nopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kafa bil mar'i kadiba comme ni ñu ko waxee woon doy na ci nit ki li ñuy tuddee fen wala bàkkaar lépp lu mu dégg nettali ko li ñu waajaloon bëri na ñu jeexalee xadis boo xam ne wallahi mbokk julli di information bu ñu ko dul bàyyi xel ñu bëri suñu daañ tarxiis te fekk waru ñoo na tarxiis xadis boo xam ne imam Bukhari ak muslim ñoo ko génni Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu moo ko nettali mu ne dañoo toog rek ci Madina xibaar ñëwal leen ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fase na waa këram yëpp ay soxnaam yëpp fase na leen pencum ay saxaaba lay wax de ay saxaaba waxuma taabiina waxu nitu waxuma nitu ordinaire comme ñun ñu ne sang bi fase na ay soxnaam yëpp Omar nee na bi ma ko déggee bi ma ñëwee ba ci jàkk ji ne maa ngi fekk gars yi ñii ngi toog ñii ngi taxaw di waxtaan ah moom kay fase na waa këram yi fase na leen su doon keneen bootul day ñëw taxaw commencé di wax la gars yi wax waaye daa ñëw ñëw ba ci buntu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu fëgg ne ko damaa bëgg a dugg mu ne ko duggal mu ne ko waaw atalaqta nisaak say sa njaboot moom da nga leen naa fase ñoom ñëppam te wax jooja nekk rek mooy mën a nekk wax ju wér mu ne sang bi ne ko déedéet Omar ne dama dal di génn fa qumtu bi baabil masjid ma taxaw ca buntu jàkka ja fa naadaytu bi ala sawti ne na mooy yuuxu ca kaw ne yéen ñi doon wax ne sang bi daa fase ay soxnaam nee na fase wut leen ci la borom bi tabaraka wa taala doon waxee ne wa ida jaahum amrun min al amni aw il xawfi adaau bi waaye nag walaw radduuhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladina yastambituuna yàlla du nit wallahi du caalin moo tax ñu koy wax waaye yàlla du nit xoolal bi muy wax lii muy su leen mbir ñëwalee moo xam ci wàllu ragal la wala tiit dañ koy tasaare mu ne walaw radduuhu ay waay balaa ñu koo tasaare buñ ko delloo woon wala waradduuhu ila rasuli nañ dem ci sang bi wa ila ulil amri nañ ko delloo kalifa ya tey bu fekkee ne jullit ñi amuñ ulul amri lu xew am na ñoo xam ne ñoo jonjoog moom gën caa jege nañ leen ko laaj suñ ca waxee beneen décision boo ca bëgg a jël doo juum gis nga walaw googu xarfu imtinaa in imtinaa ñu ne yamnau thani li wujudi l ula da koy mébét ay waay su ngeen defoon lii ah moo doon gën a mucc waaw su ngeen defee lii moo doon gën a gën a mucc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bokk ci li mu tere xeet yi mooy an qiila wa qaal wa kasrati wa kasrati su'aal géew yu bëree bari tey du nekkati géewu xam-xam ak gëstu xam-xam déedéet waaye waxtaan rek te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy suñ sang ñun sahaaba yi nettali nañ abdullah ibnu omar rawatina mu ne sang bi daan nañ ko kontal ci benn jotaayam allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilayka lépp juróom ñaar fukki yoon ñun nag tey ndeysaan dañuy toog rek tubaarkàlla di xuus rek te itam nag àdduna bi moo bindoo ni soo jaarul fii rek jaar fii yal na yàlla musal suñu làmmiñ yi yal na yàlla setal sellal suñu làmmiñ yi lépp lu ñuy wax muy dëgg teyem ci yàlla mën na loolu yal nañu ko yàlla defal waaye yal na yàlla yërëm jullit ñi ñi ci jiitu yal na yàlla jéggal leen yal na yàlla yërëm leen allahuma axfir lahum warhamhum wa aafihim waafu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi mudxalahum wa agsilhum bilmaai walsalji walbarad allahuma naqihim min alxataaya walzunub kama yunqa saab alabyad min aldanas allahuma abdilhum daaran xayran min daarihim wa ahlan xayran min ahlihim allahuma adxilhum aljanna wa aidhum min adabi alqabri wa adabi annar métti na waaye nag sedd na xol yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ida maata ibnu adam in qataa amaluhu illa min salas ku fi bàyyeekoo lépp lu la doon fekki dagg na ba mu des ñett sadaqatin jaariya aw waladin salihin yad'u la aw ilmin yuntafa'u bi sarax boo fi bàyyi woon ñu tey jaamu yàlla di fa jàng alquran mu la fay fekk wala doom ju baax joo yaroon ci lislaam mu lay ñaanal wala xam-xam boo fi tasaare woon ñu koy jëriñoo ci sa ginnaaw loolu lépp yàlla dogal na dajee na ci góor gu mag gi yal na yàlla beesal yërmandeem ngër mandeem ci moom yal nañu ko fekkee aljanna قل ما عند الله خير